nga génne un livre mu nekk le lancement euh, de ta de ta de ta candidature un autre Sénégal et possible. alors da nga laal euh, da nga laal pàcc yu bëri et puis je fais remarquer que bari nga li nga wax ci défense on sent que tu as que tu es par le par le par le par, tu as été enfant de troupe alors nga ne il faut restaurer l'autorité de l'État mu nekk un sujet qui se pose avec acuité tout à fait nga ne il faut construire les bases du plein emploi il faut défendre la nation c'est une problématique actuelle ci loolu la ñu nekk la nation est agressée euh, la cohésion de la nation est chahutée mm-hmm. nga ne il faut défendre la la la démocratie euh, nga revenir euh, sur le droit à la résistance sur le populisme ces mmh, nouveaux euh, ces yi nga xam ne dañuy miner euh, le débat démocratique il faut refonder la justice euh, et puis pour une vous donner les solutions pour une république exemplaire, exemplaire. alors je vais commencer par la par la nation euh, lan mooy ce diagnostic sur l'état de la nation, de cette belle nation euh, fondée par Léopold euh, Sédar euh, Sédar Senghor euh, je pense même pas que la nation soit fondée par Léopold Senghor, mais c'est un autre débat, c'est pas le problème. Le problème aujourd'hui soxna si mooy que Sénégal fi mu toll masul diviser ni mu diviser nii Sénégal fi mu toll xiiroo boog ngaayoo bi mosul àgg fii lu tax loolu aussi bokk na si li nga xam ne defoon naa si ay mëbët ay diagnostic bind naa si aussi kilifa réew mi bind naa ko li ma xalaat si loolu populisme bi manipulation yi lépp def naa ay li ma waroon bind bind naa ko li ma ko waroon a xalaat xalaat naa ko mais dama yaakaar ne tey li ma bëggoon a wax. mais ñenn ñoo responsable de cette division là. dinaa ñëw dinaa ñëw si loolu defal ndànk parce que gis nga responsable division euh, euh, Sénégal li may wax dafa gàtt kenn waru ko jaay kenn waru ko taal ku ko taal tooñ nga Sénégal ku ko jaay tool nga Sénégal te loolu mooy la ligne de partage mais Sénégal yu bari nekkuñu si suuf di taal nekkuñu si kaw di jaay ñu ngi si diggante bi. et loolu mooy le le le nouveau problème boo bëggee comprendre mais li xew situation parce que kilifa fu ñu ko joxe pour mu jiite mu jiite bu exemplarité bi posé wee problème xale wala ki nga jiite man mën na la yàpp loolu dafa di diagnostic boo xam ne ba am na si kër am na si société am na si dëkk am na si àdduna bi loolu dafa di lu ñu xam mais li mu bëggoon wax tey c'est que li gën a important au Sénégal la priorité des priorités parce que man je ne vais pas faire une campagne de premier ministre bëgguma nekk ministre du plan du ma fi toog di wax ay. mais ça vous colle à la peau ma baal ma baal ma madame. il a beaucoup de choses qui me collent ma peau dont ma dignité ma fierté ça me dérange pas donc je continue euh, ce que je veux dire c'est que je vais faire une campagne de président de la République et pour faire une campagne de président de la République y a qu'un objectif dans ce pays c'est réunifier ce pays fexe ba nit ñi boole fexe ba jàmm am c'est la réconciliation de ce pays qui est la priorité et ce pays on le réconcilie autour de la confiance et pour cela si je suis élu moi la première décision mooy bi may def mooy que je vais euh, euh, ordonner des enquêtes sur les accidents yi am au cours des événements les gens les manifestants qui sont qui sont morts je vais lancer des enquêtes judiciaires la deuxième chose mooy je vais gracier le maximum que je peux parce que l'article 47 de la Constitution dit le président a droit de grâce point j'exercerai ce droit de grâce pour gracier ñi nga xam ne ñu ngi dans les prisons qu'ils soient d'ailleurs des prisonniers politiques ou non politiques j'exercerai sama pouvoir de grâce en respectant bien sûr li ma constitution bi demandait enfin du au moins l'article 19 et 20 du Conseil supérieur de la magistrature de de la loi organique bi koy organisé mooy après les avoir consultés mais après ces consultations je ferai ce qui la paix dans ce pays ce qui va la réconciliation dans ce pays et je constituerai un grand gouvernement de rassemblement national qui sera à dominante société civile parce que je suis contre la confiscation de la démocratie par les partis politiques. Donc c'est ça mon état d'esprit. Mon état d'esprit est un état d'esprit de réconciliation, de paix, parce que ce pays en est fatigué de se faire mais, face. Mais, mais,